bu wootee ñëppay ñëw ku nekk la nga jàppoon da nga koy baax. loolu frustré woo mer woo mer bu woo bu leen waxoon tey jii midi midi na leen fekk chaise ba. ñu meroo ndax ñëppay ñëw. dañuy ñëw par force. mais justement Mame Mbaye loolu moom laay posé comme problématique gis ngeen gis nañu Bruno Diatta bi ñu ko fi ñàkkee gis nañu amul relais. amul ndaw goo xamante ni amuñu culte boobu au Sénégal jël benn ndaw boo xamante ni dañu koy préparer pour mu nekk la relève de demain et quand on parle de démocratie ça commence par ça. donc euh, peut-être Bruno il n'est pas dans une mais formation mais il occupe Bruno une fonction oui, oui. mais loolu nag c'est peut-être une éducation au fur et à mesure et une formation au sein de l'administration relais boobu boo andil problème waa parti socialiste ñoom Khalifa Sall ñoom Barthélémy Dias renouvellement la ñu bëggoon jox ndaw ñi jox leen yenn poste de responsabilité yi looloo ñu jote fee ñu dàq ñenn ñenn ñi ba léegi sa réclame socialiste pour éradiquer les frustrations l'égalité xam nga xam nga parti socialiste ak euh, PDS et tout bon PDS dans une moindre mesure parce que Wade est la seule constante jusque là ah. mais parti socialiste dañoo toll ci jamono joo xam ne ñi fondé woon parti bi ils ne sont plus là mais il y a les héritiers légitimes qui sont tous du parti socialiste est né l'URD de Feu Djibola Diatta mmh. benn du parti socialiste et né l'AFP de Moustapha Niasse parti socialiste est Taxawu Sénégal donc c'est autant de frustration que les gens n'ont pas su gérer c'est l'absence de démocratie selon certains Merci. et c'est ce qui continue le PDS également a eu c'est je ne sais discorde. pas c'est voilà dissidence il euh, Ngom euh, ak kanati euh, yan yan yan formation ñoo ñoo sokkee ci ci PDS euh, tout récemment ah, les les les Omar Sarr et et consorts ah, donc ça veut dire qu'il y a des situations yoo xam ne souvent parti duñ ko mën a gérer mm. et également les gens se sentant légitimes dans leur position et peut-être dans leur fonction se disent ñun mën nañoo occuper valablement telle fonction donc amuñu ko ñoom ñu dem ber seen daara wane ne ñun tam on est leader et c'est ce qui arrive au parti socialiste parce que ñëpp fa nekk ñëpp de la même génération ku ci nekk tu te dis légitime héritier de euh, euh, Ousmane Tanor léegi nag bu ñu la ko inculqué woon dès la base kenn ku ci nekk di nga xam kuy sa mag ko ci ginnaaw kan nga topp lan mooy sa rôle et ah, et mais il faut changer les choses j'ose rêver en tout cas école du parti la ah. tuddee xaw ma école du parti loolu lañ c'est le champ à l'aune des égos hmm. parce que ku ci nekk également ak sa sa mais quand jusqu'à quand est-ce que le peuple va être euh, en ah, tout cas utilisé dans ce jeu de tant que les politiciens nous diriger rek ba tontu peut-être jot moo tax dëkk bi nekk ci problème. problème gi ñu am gii nii actuellement. bañ jox ndaw ñi seen kii waaw voilà ndaw yi la ñuy laaj lu bees lañ bëgg. amaat ah, ndaw ñu ndaw mais ndaw ñi également bés bu ñu jotee ci direction parti tant que les partis fonctionnent de la sorte. c'est ce que je continuer. kon boog réformer. réforme <laughs> yeesalaat leen. yeesalaat leen yeesal lépp. waaw lu am solo <laughs> yeesal leen yëpp tëggaat leen tëggaat leen yëpp mm-hmm. alors may masawu nag mas pas masawu sax mais sama sama frère lutteur ama neex ah. dafa bokk si ñu téendi il paraît foofee sa tëngeej ci euh, manifestation yi tax na ñu téye ko duma dugg ci détail yooyu mais yow da ngay war a xam ne yow mbër ñun waa tëngeej dañ la soxla euh, bu ñu la dugg tudd euh, bu ñu la dugal ci yenn yi wala bul dugg ci yenn yi yaa def wala deful waaw moom lañ may annoncé léegi yaa def wala defoo Euh, ñun waa Tëngéej ñun dañ la soxla donc xamal ne yow ñi war a téye ëllëg goxu kumba làmb maanaam département boobee sa nga bokk dañ lay tiitaroo kon nag bëgguñu dara dal la boo génnee foofu rek bu la bul dugg ci yenn détail bul bokk ci yenn détail nga ne ko mu delloo États-Unis te toog fa waaw non non Tëngéej sax dañ ko soxla même bu delloo dinay ñëw ñu Tëngéej dañu ko soxla ñu Tëngéej dañu soxla suñu suñu suñu suñuy doom ah. <laughs> merci ay te yéeg leen ci kaw turbine bi ne ngeen nongu ci kaw tribune bi ah, ah? ne ngeen nongu gannaaw bi ngeen dee nongu nag ñu fës kee de waxtaane coow li coow li coow li bindoon ni tamal ñu koy tëggee fukki boor wax ma la ñaari boor sax yaa a Jean Paul Dias qui a quitté avant Idrissa Seck Benno voilà il était le premier à partir oui mhm. ñoo ngi xaar égalité des chances beaucoup de frustration mais lui c'était plus euh, par rapport à une nomination qui selon lui n'avait pas les mesures d'accompagnement qu'il faut ni ma ko mën a waxee. encore une sama rakk ji Pape Moussa di courage. du courage dégg pourquoi na trop en fait doom ji moom moo gaañu sama mag la ko tuddee woon moom sama rakk la Pape sa donc alhamdulilah kii doom bu. moom rek nga mën a wax vu que xale la ah docteur Amdi nee na ma euh, ama neex mujj nañ ko bàyyi mi ngi këram. Ah, ah, alors euh, jaajëf lu am solo. docteur Amdi euh, Diouf lu am solo information boobu donc dañ ko téye woon nii rek mais mujj nañ ko bàyyi mu dellu këram. c'est comme le cas de Ada Fass. Hmm. il a été relaxé donc euh, sant yàlla docteur Amdi wax nga dëgg de kon Idi Thiaw moo ma xaw a induire en erreur. donc bàyyi nañ ko. mu euh, delluwaat sant yàlla lu am solo la. loolu la ñu soxla piétiné ci sa temps. ayca affaire Sweet Beauté jàppale ne kon nee nañu bu yéene kaay bi nee na. la xewoon démb comédie la entre guillemets la ko def wala wan man show la lu mu ci man ci doon moom comédie la ko jàppee comédie judiciaire yéen kaay bi noonu la ko tuddi neen dañu ko renvoyé ba le 23 mai comédie nag dagg ticket a ci am waaye bi nag moom kenn du dagg ticket di seetaan audience spéciale la ñu woote en tout cas yéen bi foofu la génn son Sonko aurait accepté de répondre pour éviter un bain de sang Sonko nee nañu li ñu foree ci wéwu béy yéen kaay bee wax nangu woon na ngir mën a ñëw ngir bañ deret tuuru verdict par contumace mën na caa am yéenekaay bi foofu la génne les éléments qui ont favorisé le renvoi du procès yéenekaay bi dikk na ci mais am na beneen yéenekaay bu ko gën a leeral euh, fi mu nekk nag démb nee nañu wax fa dëgg neex yàlla wàññagul nañu ñaata fukk juróom-ñaar ñu faatu ci diggante ñaar at ak genn wàll yii bu ñu yëkkatee coowal euh, euh, Sweet Beauté gi ba léegi. 17 2021 ak mai 2023. 17 morts. ani ban yoon moom mooy tëgg lii ngir ñu xam nañ ñoo si tax nañ ñoo ci laale ba fii ñoo ngi toog di parce que nag bakken bu rotee am na lu ca rax koo faatu ci manifestation am na ku la faat am na ñan ñoo leen faat ñan ñoo ci taxe ñan ñoo ko sooke en tout cas ba fii ña nga xam ne ñoo ci loru ñu ngi xaar justice def liggéeyam yéenekaay bi samplaat ani ban justice moom mooy taxaw ngir nag leeral 17 morts yi nga xam ne ñoo faatu ci mbiri Sweet Beauté yéenekaay bi daal na siy dikk jamono joojee 17 manifestants yi nga xam ne ñu ngi toll ci fukki at ak teg nañu leen loxo yéenekaay bi euh, dikk na ci euh, président Macky Sall nee na nag wax fa dëgg neex yàlla nguuru Sénégal du dellu ginnaaw mukk ci euh, réseaux sociaux yi ni ñu ko bëgg utiliser nii maanaam taar réew jaar jaarale ko ci réseaux sociaux yi du ko nangu mukk nag yéenekaay président Macky Sall fëgg na si table ji Vox Populi le procès Salas procès bu nga xam ne nii mbaal mbirum baane la mbirum sëy boo xam ne ni moom moo waral ci wow li renvoyé nañ ko ba le 23 mai Euh, yéenekaay bi dikk na ci gigantisme d'une affaire de viol et de mort ba nga xam ne fu mu nekk nii nee nañu complot judiciaire daf caarax yéenekaay bi daal dina ci euh, dikk dossier bu nga xam ne nii 471 pages ma nga ca biir ay audio ñu war leen a déglu ay vidéo ñu war leen a mën a seetaan ca procès ba mu mel ni kon nag 50 avocats boo leen boolee ñoom ñëpp ñu war a layoo foofee nga xam ne moo di sa euh, tribunal ba procès bi procès Salas. mbirum mbaane. procès bu ne mel mosul am Sénégal. mosul am. ci ci mosul am. yéenekaay bi daal dina ci euh, euh, dikk le témoin nee na man maay témoin nga xam nga police maa fekk la bëgg. le témoin nee na moo fekkee le viole le plus coûteux de la république. sàkk boo xam ne moom wax fa dëgg viol bi metti na de. entre guillemets yéenekaay bi nee na viol bi cher na torop. Hmm. cher na torop torop torop torop ni mu ñu coûté li mu coûté askan ñu jigéen ñaar fukk ñu si ñàkk seen bakken ñoo xam ne nii seen i magasin lu ñu moomal seen bopp seeni i oto taal nañu ko ay ñu nga xam ne ni dañu waroon liggéey liggéeyuñu manque à gagner waroon uti dépense mënuñu dem ñu mobiliser ay moyens yu rëy ci force de l'ordre yi koppar la loolu yépp tey ji lan ndax lan mbirum viol le témoin mooy wax ba tey waxuma de man damay def rek lu tey mu wax ma dikkaat ci Sud Quotidien ñëw ci procès Sweet Beauté googee nga xam ne moo waral coow li révolte nañu ko tuddee kon nag yóbbu nañu ko ba le 23 mai le président de la euh, chambre renvoie le procès pour euh, vice dans la procédure yéen kaay bi dikk na ci nag la moo waral kon euh, renvoi boobee mu mel ni kon dinañ ci dikk ak réew mi quotidien dikk na ci également absence à l'ouverture de son procès contre Adji Sarr maître Youssou Camara mi ngay wax ne il n'a pas reçu une citation ou une convocation l'évitant à comparaître kon loolu moo tëree ñëw Ousmane Sonko amul benn citation wala convocation bu nga xam ne daanaka jox nañ ko ko. ngir mu maanaam jotul jotul convocation. jotul convocation jotul citation bu nga xam ne war naa mën a tax mu ñëw processus de vote séance déféré en tout cas lu mu ci man manti doon juge bi renvoyé na audience bi ba le 23 euh, mai jamono joojee démb sa euh, Ziguinchor it Sédhiou Goudomp am na fa yenn ci ay manifestation xanaa ñoom dañoo yàkkamti Ousmane wuyu ji ba ñu fàtte ko yónnee citation bi moom ah na gisul noo koy ah, mais mën nga ko jox avocat am gisuñu ko c'est huissier qui doit l'amener l'huissier bu ko gisul huissier bi mënu ko jox avocat bu ko gisul non moom moo war a téye wala avocat bi war a téye. avocat mënu ko représenter. déedéet déedéet. moom kay lañ ko war a. l'avocat l'assiste mais ne le représente pas. ah na ko defal procuration. le mandat ñëw na rebalote le 23 prochain mooy beneen date bi ñu jàpp keneen ku jàpp da jàppal na sa fa jamono joojee nag ki nga xam ne moo jiite forum du justiciable moom euh, Boubacar euh, Ba mu ngay xam ne ne kon doxalinu Ousmane Sonko mi jëm ci défiance justice bi ku ko def jàppal ne kon tegwoo ci yoon. yéen bi daal na ciy dikk l'observateur dikk ci procès démb bi daanaka la xewoon ca ambiance ba nekkoon ca tribunal ba ñëw na ci fu mu nekk nii méttit bi nga xam ne moom la euh, waajuru euh, ndaw bi nga xam ne moom la ñu faat sa mbay faa di dundu def na ci reportage bu euh, am solo yéen kaay bi également daal na sii dikk mu ngoog ñu jàll ci l'erreur maanaam bii tax ñu renvoyé procès bi démb ndax nee nañu boo dégloo kenn ci ñi nga xam ne dañ leen war a àtte 72 heures après nga war a mën a tëdd li nga xam ne moom mooy procès bi mais veyu procès bi ndekete déglu nañu ki nga xam ne moo di euh, Ndeye Khady Ndiaye borom salon bi donc mënu Bambey TV dañu ko téyandi moom it ma nga ca euh, dikk ngir appel à l'insurrection Omar membre bu bureau Pastef bu Touba dañu ko téyandi Yoba Balde coordonnateur communal bu Pastef Kolda ak membre yi nga xam ne mooy JPS ñoom it dañu leen téendi force de défense et de sécurité euh, sama naa sama sama frère bi lutteur Amaneex placé en garde à vue au commissariat de Rufisque mujj nañu ko bàyyi. donc nay leer mujj nañu ko euh, bàyyi kooku moom sunu su sunu alal la ñun lébu yi. l'exclusive tension dans le pays yéen kaay bi daal dina ci euh, dikka ah, dikk na li ma leen doon wax sànq si wooteeb Bara Gaye social mi nga xam ne nee na fi mu nekk nii caxat caxatee li nga xam ne ñun ñoo ko moom warul parce que buñ ko yàqee. ñun ñoo bo yàqal suñu bopp mi ngi mel ni nga toog si garab di dagg branche ba nga xam ne moom nga toog daanaka bus ba ngay taal boo waree tey yow boo ko yéegul jàpp ne say mbokk ñu ngi koy yéeg waroon dem liggéey wala am rendez-vous euh, euh, euh, kii nga xam ne taal nga bitigam wala ca tijji nga bitigam jël marchandise ba fa nekk am nga yàqal nga ko moom moomee ndax sa lay daw dépense te sa moroomu sénégalais nga yàqal jàpp ne ko ñii waroon dem xëy te xëy ñu bu ñu amul dépense it yow sa moromu sénégalais nga yàqal lépp lu nga xam ne suñu moomeel la nga yàq ko jàpp na yow sénégalais bi yaa yàqal sa bopp baaragi social nee na ñu bàyyi xel ci loolee ndax loolu rek moo tax ñu mën a euh, mucc ñu dem ci le point jamono joojee jàppale ne kon nag déedéet jox leen ko Doudou Ka borom S 24 dafay tontu waa F 24 nee na da ngeen mën a woote rek yéen da ngeen doon bippe waaye le 27 di ngeen xam ne lépp dëgg la moom it dafa woote le 27 très bien woote woon moom it fa la woote nee na nee na dëkk dóore fee koy tas yéen da ngeen doon bippe seen mobilisation Doudou Ka nee na di ngeen xam ne mobilisation yi euh, euh, euh, niroo nañu ah, waaye du ñu benn hmm. le point ñu def ci point walla ñu def ci code ñu def ci point d'interrogation MPD liggéey bu coordination bu ndaw ñuy ndaw yi les jeunes patriotes nekk ci ginnaaw Aliou Sow jëruñ ñu dénk wàllum culture hmm. fu mu nekk nii na ñoo ngi installé ñu ngi nekk ci ab tournée nationale bu am solo ngir na mhm. mën a def seen opération d'installation seen i bureaux communaux ak départementaux coordination ndaw ñi nag fu mu nekk nii euh, si mode d'installation la ñu nekk dem nañ ci commune yi ak département yi xam ngeen ne bu euh, euh, mbir kilaan ma nga ca Serge Gata wala Segre Gata Yacine Touba merci Yacine Segre Gata Touba Mbele Mbela Mbëlëb Maabo Kër Mbukki Jamaal Njoñik dem nañu fa ngir nag installé li nga xam ne mooy euh, seen euh, bureau yi ba noppi it ña dinañ dem Kaffrine Malem odaar Koungheul Kédougou Kolda lépp Aliou soow ministre bi ñu dénk wàllum culture moo nekk ci ginnaaw ngir nag euh, ñoom seen mission moo di ñu fexe ba falaat ki nga xam ne mooy président Macky Sall le point foofu la génne ah. ci ay xibaar tey jii. ñu jàll ci xabaabal nga 8h03. aywa mi balaa ngay dem ci. bokk na bokk na ci li gën a fës euh, xibaar yi euh, at procès diggante Adji Sarr Ousmane Sonko ni ki démb la ñu ko amaloon puus nañu ko ba mardi 23 mai bu ñu dëkkmal Mambay daq nañu ko mu ni dogal bu nga xam ne ni daanaka avocat yu Adji Sarr euh, neexu leen benn yoon boobu lépp dàq daañ ci teewlu ay réaction yu ci mel ni kon bu maître